xibaar yi ñoo ngi ci ànd ak volcano ngeen jafe-jafe yi mi boisson la boo xam ne aphrodisiaque la baax lool goo xam ne da a yëg sa bopp waaye tam performance moom daanaka zéro formule la boo xam ne doo ko gis feneen waaye tam ingrédients yoo xam ne cent pour cent naturel la volcano nekk seen allié bi gën ci biir néegu sëy yi volcano dina tax ngeen mën a yëg seen bopp te bu ngeen ko yëgee dégg jàmm dana leen jox sañ-sañ ak kattan ca dogal ba dana tax bëgg-bëgg kay yaay bañ gaaw a yëg sa bopp gi volcano da koy xeex waaye tam ñi nga xam ne ñoo am jafe-jafey jur volcano day mooy seen saafara da ngeen di yëngal bouteille bi jël benn dose benn waxtu laataa ngeen di séq te bu ngeen ko ñemee xam ni ne Angleterre du pomme de terre boisson 100 pour san naturel la amul additif amul colorant amul effet secondaire te mënta wàññi dara seen wërgu yaram ay chimiste ñoo ko saytu liggéey ko ci laboratoire mën a essayé leen volcano boisson aphrodisiaque la boo xam ne naan dégg jàmm laa ko dippee ngir nga mën def traitement boo xam ne mukk jafe-jafe yi nekk kay da koy dégg rek ñeenti bouteille ngay daal di jënd te boo ko jëndee tàqalikoo jafe-jafe yi nguur a fa yàllaa eh. ak volcano kër gi neex xumbute dagan njaboot gi barke ñu door xibaar yi dooree ko ci équipe national bu Sénégal xam ngeen ne weeru juin bii ñu dëgmal war nañoo amal ñaari match yu ama am solo match yooyu nag mi ngi soxal éliminatoire coupe du monde deux mille vingt six war nañoo jàkkaarloo ak RD Congo war nañoo jàkkaarloo tamit ak Mauritanie ñaari match yooyu xam nañu ci ban bis la ñu koy football waaye xam nañu tamit ci ban heure lay door RD Congo la ñu war a njëkk a jàkkaarlool match boobee jeudi di alxames yemo ak le six juin ñu koy football ca stade maître Abdoulaye Wade nekk ca Diamniadio bu 19h jotee la match boobee di door bu ñu ca noppee dinañu buub sunuy bagage dem ci réewu Mauritanie fekki fa équipe nationale bu Mauritanie match boobee le 9 juin la ñu koy jongante bu 16h jotee maanaam bu 4h jotee ci la match boobee di door kon nag équipe national bu Sénégal ñaari match yi ñu war a amal ci weeru juin bii ñu dëgmal mu soxol éliminatoire mondial 2026 xam nañu ban bis la ñu koy jongante ban heure la match yooyee di door nañu ñaan équipe nationale bi am ndam ci ñaari match yooyee yépp ñu jugee ci équipe nationale bu Sénégal waaye réewu Mauritanie moom duñu ko génn gum seen championnat boobee nag xam nañu ku ko jël ci saison bi ñu nekk muy FC Nouadhibou li leen ko may moo di ndam li nga xam ne am nañu ko démb ci dimanche ji ASAC Concorde lañ doon jàkkaarlool gagné ko benn bal ci dara jamono ji nag ñaari bëccëg képp moo des ca championnat bu Mauritanie maanaam maanam journées AS Douane bokkul nag nag ak douane bu Sénégal AS douane moo jël deuxième jamono ji FC Nouadhibou mu ngi ko jiitee sept points kon foofee dabel mënatu fa am moo tax officiellement jël nañu championnat boobee ci réewu Mauritanie ñoom nag bi mooy douze fois maanaam fukki yoon ak ñaar ñu koy jël waaye sept fois yépp dañu koo tegle maanaam juróom-ñaari yoon yi mujj FC Nouadhibou mooy jël championnat bu Mauritanie saison bii nag jël nañu ko loolee démb lañu ko amal officiellement ñu jugee ci FC ak seeni jaloore jël doomu Cameroun bi tudd Eric Maxim Choupo-Moting moom nag attaquant la ma nga ca Bayern de Munich di doxal def na ca club boobee ñeenti at nag waaye sëy bi fii la yem contrat bi ko lëkkale ak Bayern de Munich saison bi ñu nekk bu jeexee day jeex tàkk waa Bayern de Munich nag noppi wu ñu ngir yokk contrat am kon bu saison bi jeexee dafay jugee wuti beneen club muy Eric Maxime Choupo-Moting nekk doomu Cameroun xibaar boobu Fabrizio Romano moo ko xam le ñu jugee ci Eric Maxime Choupo-Moting waaye Bayern de Munich googee ñu ko génn gum bu ñu sukkandikoo ci Bild waa Bayern de Munich woo nañu waa Crystal Palace. ki leen di tàggat jamono ji ñoom waa Crystal Palace doomu almaañ la mi ngi tudd Olivier Glasner ñoom waa Bayern de Munich dañu ko bëgg Fabrizio Romano nee na Bayern na jox na dix-huit millions d'euros waa Crystal Palace ne leen seen coach bi laa bëgg a xaatimal contrat waaye club boobee nekk ca Angleterre di Crystal Palace dañoo lank kandaare nee na ñu leen su fekkee bëgg ngeen Glasner li ko bàyyi fii ci Crystal Palace mi ngi toll ci cent millions d'euros su fekkee indi ngeen loolee rek mën ngeen ko yóbbu ci seenu club mu doxal loolee tax na jamono jii waa Bayern de Munich xëpp nañu ca ndox mu sedd guy bu ñu sukkandikoo ci Bild. ñu jugee ci waa Bayern de Munich ak seenu lajj dem ca waa Manchester City ñoom nag dañoo bëgg lool doomu France bi brad Bradley Loko gone gi ma nga ca Brest di doxal li muy def mën na ko lool Daily Mail nee na waa Manchester City yebal nañu ay ndaw ci ay yoon yu bari ngir ñu saytu mbiru gone gi gone gi nag li muy def mën na ko vingt et képp la am ab défenseur la li ñu bëgg moo di xaatimal ko contrat waaye club bi ko moom di Brest nee nañu ñoom lu mu gàtt-gàtt bëgg nañu ca trente millions d'euros waaye nekkul ne Manchester City képp moo ko bëgg nag club bu ñu naan Aston Villa nekk ci réewu Angleterre ñoom tamit dañu ko bëgg te ñoo ngi koy bàyyi xel xibaar boobu Daily Mail moo ko xam le ñu jugee ci waa Manchester City ak seeni bëgg-bëgg dem ca waa Chelsea ñoom nag dañoo bëgg lool doomu Brésil bi tudd este Estevão Williams ñu gën koo xam ci Messino Chelsea nag jamono ji juboo nañu ak gone gi ci lépp li ñu bëgg moo di fexe juboo ak ñoo moom gone gi Chelsea li ñu bëgg moo di def offre bu toll ci soixante cinq millions d'euros waaye offre boobee nag seen offre bu njëkk lay doon Chelsea li ñu jàpp moo di suñu demee ba mbir mi dëgër bu ñu ca defee soixante quinze millions d'euros dinañu jubboo ak waa Palmeiras ngir xaatimal ko contrat jamono ji moom Chelsea ak Estewao Williams juboo nañu ci lépp fi mbir mi taggatémbe moo di ci diggante ñaari club yi ñu jugee ci Estewao Williams ak bëgg-bëgg boobee waa Chelsea am ci moom jël doomu France bi di Olivier Giroud fan yële weesu waxoon nañu leen ne dina jugee ci AC Milan loolee nag doomu France bi tey jii la ko dëggal def ab vidéo xamal supporter yu AC Milan yépp ne leen saison bi ñu nekk bu jeexee dina jugee ci seenub club fa mu jëm nag du fenn fu dul ci réewu am FC foofee la Olivier Giroud jëm loolee siiwal na ko moom doomu France bi xaatim na fa contrat ba atum 2025 ñu jugee ci Olivier Giroud jël beneen doomu France di rabio moom nag ma nga ca Juve tey jii dañu ko laaj ci ëllëgam foofee ci Juve mu ne jamono jii de mënaguma cee wax dara li ma bëgg moo di bàyyi ba final coupe d'Italie bi weesu Atalanta Bergame la ñuy jàkkaar lool ñoom waa Juve final boobe bu jeexee moom mii di Rabiot nee na dina wax ci ëllëgam ñu jugee ci Rabiot ak i bëgg-bëggam dem ca waa Real de Madrid bu ñu sukkandikoo ci Fabrizio Romano Real de Madrid ak doomu Allemagne bii di Toni Kroos juba woon nañu bu yàgg ngir doomu Allemagne bi yokk kontraam loole ci weeru mars la amoon waaye ba léegi nag moom Toni Kroos signéegul contrat bi kon nag lu ne mën naa xew Toni Kroos saison bi mën naa jeex mu jugee ci Real de Madrid waaye mën naa signé contrat bi toog ci Real de Madrid kon nag ëllëgëm ci Real de Madrid dara wóoragu ci moom Toni Kroos ak Luka Modric mii ngeen di gis loolee la Fabrizio xam xamle ñu juge ci Toni Kroos ak waa Real de Madrid jël doomu France bi di Ferland Mendy bu ñu sukkandikoo ci le parisien Didier Deschamps mi tàggat équipe nationale bu France dina ko woo ngir ànd ak moom dem ca Europe li tax nag moo di Lucas Hernandez dafa am ligament loolee moo tax moom mii di Ferland Mendy dinañu ko woo ndax kat Lucas Digne jamono jii des naa doxal Ferland Mendy mi ngi doxal ak waa Real de Madrid moo tax ñu ko woo mu dem ca Europe remplacer Lucas Hernandez moom mii nag di Ferland Mendy gëj na lool ci équipe nationale bu France. ñu jugee ci Ferland Mendy jël doomu Espagne bi tudd Ansu Fati moom nag jamono jii ma nga ca Brighton waaye Brighton googee duñu ko téye mën naa dellu si waat nag ca Barcelone waaye bu ñëwee ca Barcelone mën na faa bañ a toog ndax club bu ñu naan Séville nekk ca Liga ba dañu ko bëgg waa Séville li ñu bëgg moo di jëlee ko ca Barcelone Estadio Deportivo nee na jamono ji waa Séville ñoo ngi liggéey ca mbir moomee waaye li ko nar a yàq nag moo di mbiru xaalis ndax gone gi waa Barcelone dañoo bëgg ci moom kaalis te jamono ji waa Séville amuñu yenn xaalis yooyee kon nag mbir moomee bu sottiwut li koy yàq bokk na ci xaalis loolee la ëdee xamle muy